mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax di am mbégte teewaat fii ci ndimbalu suñu borom ak kattanam di sant yàlla bu baax nag di ko gërëm di gërëm ñëpp di leen sant di gërëm Abdoulaye Diallo fàllu mu nekk ci régie bi di ja jaale abdu Top papaam di nuyu El Hadji du juuf di nuyu solution TV yëpp di ñaan suñu borom yokku ñu wér yokku ñu jàmm yokku ñu xéewal yokku ñu sutura alxamis ji nag ñu weesu suñu borom dafa defoon ñu wutee wute bi nag li ko wutu euh, waraloon ñëpp xam nañ ko mooy tiis rek waaw tiis nag mu ngi nit a ànd mu mel na dox ba ci ak di fakka salu àdduna noonu la ñàkkoon sunu mag yoo xam ne ñoo bokk ndeeg bàyyi sunu borom dogal na denc nañ ko di gërëm ñëpp nag ñi ñëw ak ñi ñëwul ñi wooteeg ñi wootewul mbokk xarit dëkkandoo ah confrère ñëpp ñu ngi leen di gërëm rawatina waa Solution TV ñu ngi leen di gërëm baax di leen sant yàlla na yéex a fay bor bi euh, liñ fi desee yàlla na sakkan loolu te gudd fan te barkeel di gërëm baax son yi bu ah, taxawaay bi rafet na euh, sandiogu taxawaay bi rafet na yegg si nan fa ak ñeneen ak ñeneen di leen gërëm ñépp di leen sant kon euh, di jublu rek ci waxtaan wi tey jii nag ñu fa yéene waxtaanee loo xam ne tey jii li naan feccikat mënta ñu tama comme ñun waxee sunu métier te réew mi moom la Abdoulaye Wade doon wax naan senegal maanaam réew mu wax la ku noppi bokkoo waaw ku noppi bokkoo sëñ Abdou doon wax naan lam bi wax la ku noppi ñu daan la ak ay dëgg tey nag lu tax lu tax tey jii ñu jug di wax dina wax ci ñetti point bi ci njëkk mooy ma Madiambal Diagne ak général kànde ak la mu ca bind beneen bi si topp dinañ wax ci justice bi ak tooge ak waxtaan gin koy waxtaanee jamono yi ci réew mi ak lan moo waral tooge bi ak la comportement de la presse maanaam doxalinu ëttu taskat xabaar yi ci mim réew di Sonko ak Sonko ak Jomaay seen taxawaay ci réew mi ñenn ñi jàpp ni ay gaynde lañ woon bi ñuy ut réew mi waaye nag. tey jii falu nan mais ñenn ñi sax jàpp ni lan moo leen dal dal leen a yeew walla lan moo xew ba ñi fi daawul lappi lappi démb tey jii di lappi lappi te tey jii ñu yor justice yor armée yor takk der yi yor décret yi yor signature yi mun a nommer mun a gome mun a dégommer loolu lépp suñu borom may leen ko ci kàttan waaye tey jii la. leen gaa yi gën a yàpp wala tey jii leen gaa yi gën a ñeme ci ñoom la wala ci gaay yi dinañ ci dikk ci kanam ñu njëkkee rek Madiambal ma Madiambal Diagne démb damaa gis benn titre boo xam ne ci jamonoy Abdou Diouf nit ñemewul woon def titre boobu jamonoy Laye Wade nit ñemewul woon def titre boobu ci jamonoy Macky Sall bu ko nit mësaana def ay tànkam du laal suuf ndax nit def na lu gën a néew loolu dugg kaso di jégalu ci baat bi dama xawoon na soj xam na boo nekkee ci yenn affaires yi moom mooy loolu coono beeg yaa ma gën a xam yàlla dogal ma jàmbal bu dee Ablaye gis nga titre le quotidien bi le général Kandé ca rebelle ci décision boo xam ne le président Bassirou Diomaye Faye da kaa jël ci yóbbu ko ci New Delhi ca Inde ngir mu nekk fa taxawal fa Sénégal wàllu militaire mu mel ne yóbbu gin ko fa yóbbu général bi da ko xeeb ci ni ma jambal waxee te man gëwuma li ma jambal wax parce que gisagunu genn kayit goo xam ne dañ ne général bi moo bind lii wala moo wax lii parce que dans l'armée daam li ñuy wax dañ naan la grande muette la grande muette maanaam ñoo xam ne seen doole mooy noppi ñoom ñoom seen doole du wax noppi la noppi teg ci seen doole mooy obéir xam la mooy obéir maanaam obéir mi ngi mel ne ngay sukk jébbalu mi ngi mel ne taalibe ak sëriñam mais sax ëpp na sax loolu ñu ne le président de la république Bassirou Diomaye fay mooy le chef suprême des armées maanaam képp ki ñuy toojal ci réew mi rek Bassirou Diomaye fay moo la ëpp daraja maanaam képp ku fi jaay mbaxane mu kawe rek moo la ko ëpp ci réew mi maanaam président bu ñu doon wax dan naan amul nawle ci réew mi président jël dogal ñu ne la général kande dafa war a dem ci New Delhi xamuñu yenn raison moo tax ñu yóbbu ko fa parce que day am lu ñuy wax secret militaire bu ma juumul sax. ci benn article mi ngi sama kayit yi mooy article deux cent cinquante bu code pénal dañ bépp journaliste bu traité désobéissance maanaam nag traité ni armée ni dafa bañal nguur journaliste boobu da nga ko war a woo toppee ko bind boobu mu bind walla wax boobu mu wax tey jii dégguñu général bi dégguñu mbokkam dégguñu kayit bu jóge ci armée bi dégguñu waa DIRPA dégguñu kenn ci décret boo xam ne le 28 29 mars la que le président de la république Macky Sall signé parce que bu njëkk ay colonel lan daan yóbbu ci ambassade yi wala ñu def leen ambassadeur mais attaché militaire ak yooyu daaw ñu leen ko def mais Macky Sall fi bàyyi décret boo xam ne tey jii léegi ñoom mën nañ dem. di nekk ay attaché militaire am na sax neneen lu leen tuddee ci jargon waa armée Madiambal Diagne ne général Kandé loolu ñu ko teg du dëgg moo tax mu ne day attaqué décret wu jomaay bi ca cour suprême te fen yi njëkk yi njëkk a fen sax xam mooy lan ñoom dañ ne woon Sonko mooy régler ay comptes dinaa ci dikk ci kanam te ba Madiambal moo ko bind de mais bindam boobu mu bind dañ ko war a woo Madiambal Diagne woo ko na ko Madiambal li nga bind foo ko teg ku la wax li ak fan la jaar ak wax ji nga wax lan ko ci jublu yëngal réew mi wala di pousser armée bi pour ñu daaneel nguur gi dañ egg ci kàddu yi dañ ko ko war a laaj bu dee Madiambal moom moom réew mi bu dee Madiambal moom laa làkke la bu dee ab intouchable la wala ab saboteur la bu Macky Sall yebal pour mu déstabiliser réew mi ñu xam lan la parce que nag li ma jambal def moo gën a garaaw li baajaxate def parce que Bah Diakhaté nit la tooñ mais tooñul réew mi Imam Ndaw nit la tooñ mais tooñul réew mi mais ma jambal li mu def tooñ réew mi la te njëkkewu ci tey dinaa ci dikk ci yoo xam ne njëkkewu ci tey tey jii xoolal bi sonk à la manœuvre dégg nañ ci Mamadou Ibra Kane journaliste moom tam mu wax ci boox lu ëpp wax boox lu ëpp naan sonk mooy régler ay comptam Sonko du Sonko mooy président sonk mooy yër décret bi mën a yóbbu ab général New Delhi mu mel ne daal Sonko moo amul yaay ci réew mi quoi. lu neex Mamadou Ibra Kane wax parce que nee na liggéey ba général Kandé doon def ca Casamance moo met Sonko moo tax Sonko di rek la ay kontam pourquoi ñu doon wax secret militaire mooy daf ci am loo xam ne kenn du ko laal daa am ñu ko moom da leen koy bàyyee te général Kandé mii tey jii lii ñu ko teg bu dul dëgg ci gëstu yu ma def. mooy chef d'état-major général des armées la waroon bind ne li ma teg du dëgg parce que moom président xam lu mu mën ci moom sant ko mu def tere ko mu bàyyi général kande le président de la république mooy kilifaam te kilifa du tuuti mooy chef suprême des armées moo leen gën a diis mbagg mais moo leen gën a kaw mbaxana moom sequl ak dara président lu dul président ne ko defal mu def bàyyil mu bàyyi. léegi nag lan moo waral yóbbu ko New Delhi ñun xamuñu ko même buñ ko xamoon duñ ko wax même buñ ko xamoon duñ ko wax y a des yoo xam ne kenn du ci dugg te li ci Madiambal bind moo tax ñu toog tey jii di ci chronique parce que mbir bi dafa ñëw ci place publique bi ñaata général lan mës a yóbbu bitim réew te jurul coow lii ñaata jëf la fi Macky Sall mës jëf te jurul coow lii léegi ñu bëgg a bàyyi ma jambal jaañ wala benn Mamadou Ibra Kane ay saboteur yoo xam ne seen intérêt leen jiital ci intérêt réew mi ñoom réew mi tàkk réew mi neex nguur gi daanoog mu nefi lañ jamale ñoom seen bopp rek ay égo lañ ñu bëgg leen bàyyi ñu fi lappi-lappi bu dee Sonko ak Jomaay danoo jiite nguur gi ba pare ragal gaay nan ñu ko wax ragal gaay na ñu ko wax wala da am leneen lu ci neew daa am lu ñuy tiit nañu ko wax bu dee da leen a jàpp nan ñu ko wax ñu utal leen ay sëriñ ñu yeewi leen parce que xamewul leen ñii parce que nag boo jiitee nguur ñaar a am de man dama ko gëm mooy da ngay mën a jël décision maanaam di dogal mais di sanctionner yàlla mii suñu borom sax doola jooj la yor de sa sañ dogal mais sañ a sanctionner maanaam la waajoon wax yàlla mooy dundal waaye yàlla tamit mooy rey est-ce que mën ngeen gën a baax yàlla yéen. di nga sécurité des biens et des personnes yéen Sonko ak Diomaye lañ ko dénk surtout Diomaye man je parle de Diomaye c'est le président de la République lépp luy salfaañe réew mi ak kaaraange gi ak cohésion nationale bi ak unité nationale bi képp ku koy sappe dala la war a duma da la war a duma te loolu ma jambal di ci war a jiitu mbiri ji nga Madiambal yàpp na Sonko yàpp goo xam ne ji nga bi nguur gi taxawee tey ji ji nga dafa am lu ñu naan les lundis de Madiambal booy lire le journal quotidien da koy def ay chronique lay def wala des fois mu làqatu ci sucre sale man damay damay revue de presse xam naa seen affaire yi ñuy def des fois nit bind dara sax làqatu ci beneen tur am na benn journaliste bi def revue de presse français te bar bi sew lépp lu Madiambal bind moo koy liiral xam luñ seq. kooku tey ci ñi gën a bañ Sonko ci réew mi la bokk bi Sonko di nekk opposition maanaam journal yi daan titre Sonko sax daaw ko revue de presse wala bu ko defee rek da ci amul lu ko neex mos naa ko dénoncé mu mel na daf maa dégg mu xëy ma dégg mi mais journal yëpp dañ daan xëy titre Sonko muy ñëw di dugg ci biir journal bi di segg di revue loo xam ne sax kenn laaju ko ko tey jii lépp lu ma jëmbal bind ci lu bon ci nguur gi rek moom dina ko revue de presse te pourtant ñaata nit ñooy def ay chronique ñaata nit ñooy def ay bie ñaata nit journaliste ñooy def ay analyse ñooy def ay commentaire te du ko def waa jooju di revue de presse ñu ngi may dégg man naan te laaw booy réseaux sociaux yi la ñuy nax dàq ñu ma revue dàq ñu ma journal te jàgg naa ci rédaction yi caay-caay gu ñuul nas xam mën naa ko nocc ak média bu mënti doon nan bàyyi seen yooyu ñuy def dem na ba ci manipulation yi ñuy def bu xëy na ceeb yokku na ceeb yokkul ñu xëy na soble courant yooyu fal maanaam di xëy di jox ay fausse information seen journaliste yi leen liggéey la ñoo ñàkk fayda man yaa ma jiite yaa may fay mais moo moom ma kenn du ma fenloo parce que ay lâche lanu lâche parce que nag boo bëggee politique da ngay politique xam ne yow da ngay politique da ngay opposé wu mais jël sa rajo ak sa télé ak sa journal di ko politiquer yemoo ci di ko politiquer mais di sos loolu c'est de la lâcheté mais seen journaliste yi jël di ko di leen sant loolu des poltrons de la presse ñu koy def ñoom la ñoom la am yàlla yàllaay buur ñàkk yàlla yàllaay buur te journaliste bu ci crédibilité génnee doonatul dara moo waral tey jii ñi ngàkk ngàkk fu nañu jëm fa Sonko ak Jomaay nag alal ko sàggan ku farlu moo koy mujjee jingal saay-saay lu ko sa alal jar pour mu jël ko na la ko jaral pour nga téye ko 54 pour cent mun nga fal ci réew mi 2021 ak tey jii ñu leen di xeexal jëkkati réew mi jox leen ko ci jox bu rafet tey jii ñu dénk leen réew mi ngeen yox yox yi naan li weesu non kenn du ko tudd li weesu kenn du ko li déedéet tegawul leen fi loolu de danoo bëgg ngeen lijjanti gaa yi li ma daan wax mooy fii la Mamadou Dia daan wax ma koy fàttali fii ku fi mbaam mbaam lu ñu lawbe lawbe lu sa kaw ak ay dëgg ku fi nit nit lu rek àdduna ñaar la le bâton ou la carotte àddina ñaar la ma ñi baax danoo war a am lu baax mais ñi bon danoo war a am lu bon comme liy waxee isbul xaq wala isbul seytaan jigéen ñi taxaw ci dëgg kenn mun leen cee jële waaye ñi nekk ci ay caaxaan da leen war a faagaagal loolay dëgg parce que nag da am point yoo xam ne buñ demee ba di ko laal lu jëm ci armée bi dinaan un général boo xam ne moo jiite armée de terre yor les renseignements généraux min Casamance jaar fu ne ñu bëgg a créer benn situation digganteem ak ñi jiite réew mi di le président de la république et le premier ministre loolu Bassirou Diomaye Faye moo war a la fin de la récréation teg ci aussi Diomaye réew mi bu neexoon Sonko mu jël ko ñu pousse élection mu dil ak Macky doo jot ci réew mi Sonko def na sacrifice bu ne ci yow bi mu lay tànn dàqoo fi dàqoo fi jàng mënoo fi gënoo fee yaru dalaa wóolu tànn la jomaay moo war a taxawu sonko parce que ñii liñ la jàppee sonko dafa war a jeex baa jaxate di ko jiñ góor jigéen ñoom ma jambal nekk fële ku yor sa lu bon jal ko ci kaw sonko di nga jomaay ku la nekkal ci kër gi nekkal ko ci naaj bi daa loo xam sonko du ko wax waa Pastef du ko wax waaye ñun duñ Pastef ñun ay journaliste la ñuy def analyse ay observateur la dañuy gis di dégg xam na li xew ci réew mi xam na li xew ci réew mi léegi nag président yenn sañ-sañ yaa ko am yenn nit yaa leen mën a yamale parce que li jiituwul tey ci nguuru Macky sàll général Moussa Fall mi ngi fi woon mais def na fi juin deux mille vingt deux bu ma juumul ah, mooy bi ñu waaj législative ñaan liste ñoom Sonko bi day jàll ak du jàll ñu rey fi ñetti nit. ji nga bi ñu leen ree bi nu xëyee journal yi ay quotidien ak yenn journal yu bari bi nu xëyee mais général Moussa Fall lañ jël def ko héros héros au lieu ñu naqarlu nit yiy dee mais ñu jël général Moussa Fall porté ko en triomphe journal yi ñoo ko doon def lan lañ jublu ci di may fit armée bi di leen may doole ñoom ma jàmbal yi dem na ci ba général Moussa Fall yow dan lay fal di la folli au commandant de la gendarmerie nga jiite ko mais am na ñu ne waru koon jiite am na ñu ne waru koon jiite parce que deful école de guerre dañ koy nëbb boo xee ñu naan la am na ay diplôme am na lii am na lee am na lee yenn détail duñ ci dugg d'après nos informations deful école de guerre te ku deful école de guerre waroo jiite moom fi fi ko makki tegoon waru fa ne mais pour que ñoom ma jàmbali est-ce dañ ci waxoon est-ce que waxoon loolu ñun day gëstu de ñooñu mag mais miin nañ dëkk bi xam lépp wax lépp moo baaxul général Meïssa Sélé Ndiaye mu nekk nekkoon aide de camp président de la république est-ce que waroon na nekk aide de camp am na ñu ne war kon ne parce que un général warul nekk aide de camp colonel la war a doon est-ce que jàmbal dafa mës a bind ci loolu gis nañ fi ab général ci ab vidéo mu dem di politique vidéo bi de nekkoon na viral dans les réseaux sociaux alors que loolu war ko woon est-ce que ñoom Madiambal danoo waxoon loolu il faut ma jàmbal Diagne ak ñi mel ni moom ci réew mi balaa ñuy taal réew mi Sénégal nañ waxante dëgg ñi nga réew mi kenn gën ñu koo bëgg foofu lañ ci yem léegi nag Sonko ak Diomaye war a taxaw maytu ba pare mais jël seeni garde parce que bu ne le patron des renseignements généraux di léegi ñoom seen i nañ ko vérifier di xool mais aussi bañ a doyloo rek renseignement yi bañ a sori seeni nit ku la fàttee la la foo lekk day gaaw ci yow bañ fàtte seen i nit lu tax ma ni bañ a fàtte seen i nit si seen i nit daf ci am ñu leen xeexaloon démb joxe seen bakkan ñi dee ci ñi ñàkk seen alal ñi decc lu ne loolu moo tax may dugg ci assises yi justice bi doon def toogaay boobu ñu doon toogee ci réew mi doon waxtaanee yoon yoon lu jëra waxtaane am ñun ñu ne les conclusions de deux mille dix-huit lan waroon a jël parce que waxtaane mais deux mille dix-huit ak léegi li fi dox kenn xamul mu toll deux mille dix ak léegi li fi maanaam nguuru président Macky Sall liñ fi rey ci ay nit ci ay manifestation kenn xamul tool toll ay mille jeunes fekk ay kilifa seen kawlal ñu jàpp benn post bu ndaw jomaay mi ci la Sonko jiñ ko portable jiñ ko mbiri Adji Sarr tappale yóbbu ko mënuñu ko jiñ viol ñu dem jëlee corruption de la jeunesse kenn xamul fu ñu ko jëlee ci àddina dóor ko Sonko fi leen taxaw naan ñu ay mandat d'arrêt ay compte max ak kenn xamatul Ismaïla Madior Fall mi jàngale yoon ba ñëpp jàpp ni dakaa mokkal dem ba réer ci yoon na waxatuma yoon politique laay wax loolu ci réew mi la xewe ñu gis fi Omar xam jàll le doyen de juges yàq fi lu ne Ousmane Sonko xam nga mythomane la ko tudd woon baat bu ñaaw maanaam moom di commenter yow nga war a àtte di ut fooy far bay commentaire ci dossier boo xam ne eggagul fii la xëyee ñu gis la procureur de la république dem bay def victime du net comme li may toon so dafa provi dafa mel ni ki def victime du net jël ay vidéo Ousmane Sonko compilé ko hmm? ñu dem ba le juge Mamadou sekk plus de mille jeunes ku ñëw nga jàll yow soo nekk ci mandat dépôt automatique automatique automatique automatique kenn xamul mu toll mais yooyu yëpp dañ ko dund ñu gis Serigne Bassirou Gueye mbiri Adji Sarr ak Sonko fi mu egg Serigne Bassirou Gueye loxoom génn ji capitaine Touré expliqué ñun ñëpp wax nañu lépp tey jii am na nu Serigne Bassirou Gueye doon doxalee ci dossier Adji Sarr kenn du ci dee kenn du ci gaañu kenn du tëj kenn tey jii moo jiite of nag léegi Cheikh Bara Ndiaye dem ca assise ñu ni ko non doo fi tudd kenn pour lan pourquoi duñ tudd sëñ Bassirou Gueye def ji nga ñu fi def lu baax buñ koy wax seen mbokk dañuy siggi li Pape Alé Niang yaa ko daan wax mooy nañ def li si bi ëllëg ñi fi doon def lu bon di jàpp doomu jàmbur di fooy justice bi ñu wane leen bu leen mënul jàpp tëj leen te nan wax ni ñii la du leen fàtte de ñun duñ fàtte li fi sëñ Bassirou Gueye def Cheikh Bara Ndiaye li mu wax dëgg la juge Mamadou Seck duñ ko fàtte Omar Maham Diallo duñ ko fàtte bu ñu ko fàtte parce que nag réew mi daa am lu fi xew ñu jàpp plus de mille jeunes ci kaso yi torturer leen ñi ñu tëj leen ñi ñu jëlee ci ay feebar maanaam ñu jàppandoo leen ñoom ñëpp jël leen ay actes terroristes yóbbu leen instruction xëy bàyyi leen te kenn arrêté wu leen Sénégal gi la xewee ñu ne duñ waxtaanee justice bi te ña defoon jëfi ñaawteef yooyu nekk ci réew mi ñu ne kenn du ko tudd loolu mooy mbiri naafeq mooy hypocrisie li fi weesu kenn du ko fàtte bu leen neexee na ngeen baale loolu fii la xewee ay nit sa fopp alal réew mi sàcc ko milliard Covid yi ba tey ñu ngi doxi seen soxla yabal ay ba ba yabal ku leen neex mu toog ci média yi di saaga Sonko ak Diomaye bu dee da ngeen ngeen ni noonu ñun nañ ko fàtte dangeen leen di topp ba mu sës ñu xam ne ñii ñoo sàcc suñu alal ñoo rey suñuy doom ñoo leen tëj. ñu mel ne Cheikh Bara Ndiaye dañ leen war a fonk ji nga projet bi liñ ci daj Sonko ak Jomaay sax daj ñu ko seen bopp bu dee kaso dugg nañ ko Cheikh dugg na ko man dama fekkee loo xam ne kenn mënu ko wax dajale ñetti téeméeri nit biir këram rey nag ñaan bu ne mu sacrifice bu ne mu def ko dem ba bakkanam bëgg cee des tëdd feebar parce que am na yoo xam ne boo koy def mun a dellu si waat ci yow wala sa njaboot parce que nag xeex ay kilifa wala xeexal ay kilifa yombul parce que ñi nga jàkkaarloo dañuy jug si seen bopp mais malgré tout mais loolu lépp def na ko fekk ak soxnaam yëkkati fetal tiimale ko tiimale ko soxnaam soxnaam toll ci weeram kilifa yee ko fajar ci lalam taal otoom. bi gars yi di seytaane bëgg a yàqal Sonko ak Jomaay biir Touba Cheikh Bara moo ñëw défier leen taxaw jàkkaarloog ñoom loolu fii la ñu fekk dem na ba sax yenn mbàkke mbàkke yi mere ko ci te Cheikh ku ko xam léppam Touba la mais Sonko ak Jomaay jaraloon nañ ko mu jàkkaarloog yenn nit yi palaatoo bu ne mu toogal leen fa ay mbokkam tere ko mu bañ na projet bi poubaar rek man ak projet bi ba projet bi falu rajo bu falu ñu jël ay bamb bamba kase yoo xam ne ay émission jàkkaarloo lañ doon toog lu ñu yàqul Sonko ak Jomaay da ko fàtte ay Babacar Ba forum di justiciable loolu la yàkkul Sonko ak Jomaay da nga ko fàtte maa ngi dégg Babacar Ba naan ci mbiri Bah nañ ko yaram baal ko lu tax waxoo ko woon ci détenu politique yi nekkoon ci kaso bi xaar ba tey tey nga am yërmande yow tey nga mën a taxaw les justiciables mais il faut la vérité léegi ñu ne nan def assise de la justice ñu ne li fi jot a xew kenn du ko wax nañ def table rase surtout bis bu ko Sonko ak Diomaye defee. billaahi nit ñi dinañ ne danoo dil ak Macky Sall ah danoo dil ak jox leen réew mi pour ñu suul lépp da am loo xam ne ñoom waruñu ko nangu nañ ci bàyyi xel bu baax. kon tey jii le mooy ay Mbodj taxaw na tudd Ismaïla Madior Fall kenn dagg ko Aïda Mbodj kenn dagg ko keneen tudd na fa tur pourquoi ñu tudd sëñ Bassirou Gueye ñu ne du ko fi waxee te ñi ko daan tere wax Cheikh Bara moo leen gën a légitime politiquement et médiatiquement même bu dee ni ñoom ci média lañ ne ñoom ñëpp am na benn jamono Macky Sall lañ àndal di xeex Sonko ak Diomaye tey ji ñu bëgg leen mettre au même niveau que ñi doon xeexal Sonko ak Jomaay bu ñëpp yamee am ñu gedd seen cër ci nga xeex bi ay nit dañ ci ñàkk lu ne dañ ci daj lu ne te damay wax lenn man Cheikh baar sama xarit la mais bu nekkul ci dëgg ànduma ci mais nit ku ëpp mérite ci combat wu Pastef bi Cheikh Bara parce que am nay jamono wax jafe na nag kon Sonko Jomaay bu leen nangu ñu ñenn ñi wër leen di dox seen digganteeg ñenn ñi buñ ko nangu ñenn ñi wër leen di dox seen digganteeg ñenn ñi di leen isolé parce que fii képp ku fi falu bees da lay isolé daa am ñoo xam ne da lay jël ber la teg la ci kaw nga sori askan wi da ngay dem ba réalité bi yow doo ko liwati te tey jii boo gisee ñi nekk ci anti système bi maanaam ñi nekkoon ci système bi ñu ngi buruxlu di dugg de di nandite di puus ñi daal xeex xeex bi. te ñii mu ñu leen jariñ dara ay Bamba Kassé yooyu mun ñu leen jariñ dara balaa ngeen koy xam législative ak local am fi mun ñu leen jariñ dara politiquement yéen seen doole mooy baas bi seen doole mooy les chroniqueurs yi nekk dans les plateaux di leen xeexal ay Cheikh Ousmane Touré ñoom Cheikh Baara ñoom keneen ak keneen bu doon lim du jeex ñooñu il faut ñu gestu leen man waxuma nan fay lii nan fal sama yoon nekku ci mais na leen respecte Diomaye ak Sonko amoo leen jot ci réew mi ngeen ne mais dafa am ay avocats yu sacrifié woon pour yéen ay jeunes yu sacrifié pour yéen même bu dul dara war na am ñi leen war comme Ousseynou li je le cite communication nga yor palais da ngay doog a door mais yow war nga nekk benn buum boo xam ne yaay maanaam puso bi ñëw diggante Sonko Diomaye ak askan parce que. am na ñoo xam ne buñ jotatul ci ñoom mën nañ di leen sànni xeer di leen fekk du ci ñoom fekk ñi leen wër la ak ñu dox seen diggante mais kon war ngeen ni ibbi bunt yi ba ku bëgg a jot Sonko wala mu jot Jomaay mën a jaar ci yéen mais bu dee da ngeen yéeg siisu bu dee da ngeen yéeg fuyu loolu day jur problème il faut diir la vérité ñun réew mi fii man Macky Sall dama fekk mu falu Abdoulaye Wade dama fekk mu falu Macky bi muy falu ku baax la. Abdoulaye bi fal ku baax la mais day am ay faucon yu la wër daf ci am ñoo xam dañoo siis te lu sotti am boroom jigéen ñi xeexoon xeex bi ba mbir mi toll fenn am na ñoo xam dañuy obligé di leen écarter te du du du du bu njëkkaa ah, jomaay dem la fi Touba mais Cheikh Bara di dugg ñu baare ko lii amaat warutul amaat campagne électorale ñëw mu jël xaalisam lii am na Xaadim Bamba Diagne maa ngi koy dégg mu naan élection yi bu deen Cheikh Bara candidat la troisième lay jël ndax yenn candidat yi moo leen ëpp mbooloo Mara Niass daf ci am ñoo xam ne bu leen leen fàtte ku fàtte la la faloon fa folee ku gaaw ji nga ñi leen accaparé ne ñu naan ay Isaac Yankoba Ndiaye wala kii ñooñ assise bu mës a ñëw ci addi ci réew mi ay Jol Fall Saw ay Amadou Ba ak ñooñ ñu ne ñoo jiite commission yi assise de justice bu mës a am ci réew mi ñooñ ñoo ko jiite te ji nga rapport CNRI en 2001 bu 2002 bu ma juumul Amadou Mahtar Mbow jiite woon ko rapport boobu lu ko gën ci àddina amul mais bin pare Macky Sall dafa la dama ciy tànn lu ma neex li ma neexul ma sànni ko te pourtant bi muy santaane liggéey bi Macky Sall jubluwu ci woon loolu mais ñi la wër ñooy yéey sa noppi yéey sa bopp bi soralal ak askan wi di la gëm loolu nekkul te Sonko ak Diomaye seen doole mooy askan wi de te joolay jën ndox la la foofu laay tëjee mooy Ousmane Tanor Dieng daan na ko wax parti socialiste géej la militants yi ay jël la ku génn dee mais Pastef aussi géej la foofu rek laay yem kon base bi buñ ko fàtte nu fàtte la leen faloon teg ci tey nan wala ñoo jiite réew mi décision bu nu war a jël te mu tegu ci yoon nañ ko jël ku nu war a sanctionné tam tegu ci yoon nañ ko jël loolu la leen fale mais ñu leen pour ñu yox yoxi cinq ans yàggul dangay ngay xëy rek ñu ne cinq yi jeex na. nga naan ah, lan laay wax sénégalais yi kon di gërëm bu baax euh, Abdoulaye Diallo euh, fàllu Gumba la topp ñu ngi koy jaalewaat papam di ko masaw bu baax di gërëm El moo du aussi te ñu ngi koy nuyu di nuyu waa solution yëpp di ñaan yàlla defal ñu jàmm solution defal ñu xéwal defal ñu sutura solution gën a dox gën a neex ca kaw ca kanam ci lu baax Omar bun Xataab Gueye moo nekkoon ci kàddu gi mbokk yi kon ba beneen alxamis incha allah ñu dellu siwaat